عدنا منوكو خولنت والجنو بن مالك منوكو خولنا دار بديك عدنا منوكو خولنت والجنو بن مالك منوكو أدنا منوكو خولنت والجنو بن مالك منوكو jëmmalul boppam soxna jaara moo jaara soxna jaara sa jéggi àdduna man faaxal min si war jënn alaw bin maale gën man faaxal dëgg bee laa jóg way fi ngeen si lin si ñëwee juuma jëmmalul boppam soxna jaara moo deebe dey soxna jaara soxna jaara bu géeyoon kon bi ndeefi tey jaara soxna jaara sa géej gi abdourahmanu baaxaw leen léewal génn aw mel naa leen génn mano baaxaw waaju nga teewal nga te farax nga te foo nga dellu noppi di sellal ah. yow la yàlla jox baar dellu noppi di sellal yow la yàlla jox jaara waaye ñu nga teewal nga teewal nga teewal nga dellu noppi di sellal yow la yàlla jox barke waaye ñu nga teewal nga teewal nga teewal nga dellu noppi di sellal yow la yàlla jox barke waaye ñu nga teewal nga teewal nga teewal nga dellu noppi di sellal yow la yàlla doj xajul cim nen sama ma jaara lan woon kon su ma cuune den wan fii woon ndax doj la doj xajul cim nen soxna jaara lan woon doj la doj xajul cim nen maam soxna jaara lan woolu doj la doj xajul cim nen maam soxna jaara lan woolu doj la doj xajul cim nen soxna jaara lan woolu doj la doj xajul cim nen nen maam soxna jaara lan waalo la dag xaajal ci nen soxna jaara lan waalo la dag xaajal ci nen maam soxna jaara lan waalo la dag xaajal ci nen maam soxna jaara lan waalo ku demat du xam juune nu war kiin woolu daj la daj xaajal ci nen soxna jaara lan waalo ku demat du xam juune nu war kiin woolu daj la daj xaajal soxna jaara lañu waalo ku diga julli te jaaw pul muslim julli te wirdul door a xëy sangam tuubal dal di wal këram buubal pul muslim julli te jaaw pul muslim julli te wirdul door a xëy sangam tuubal dal di wal këram buubal ku diga julli te jaaw pul muslim julli te wirdul ah. door a xëy sangam tuubal dal di wal këram jaara pul muslim julli te jaaw kon mos la julli tawétul doora xëy jàngal tuuba ndaati way karam buuba jigéen takkandoom li ci njëkk jigéenam soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta moom maaram tuuti ay takkandoom li ci njëkk jigéenam soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta moom maaram soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta moom maaram soxna Anta Njaay soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta moom maaram soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta moom maaram soxna Anta Njaay soxna Anta Njaay mbokkum taala Anta moom maaram batin moo waral moo de baxaar moo waral sëriñ gaawaan la fi bambay jaamam jam sëriñ la jam batin la moo waral moo de baxaar moo waral sëriñ gaawaan la fi bambay jaamam jam sëriñ la jam batin la moo waral moo de baxaar anta yilla jàmbaatin moo waral moo dem gaale daga waral sëriñ jaawaan la ti bambay jaamam anta yilla jàmbaatin la moo waral moo dem gaale daga waral sëriñ jaawaan la ti bambay jaamam anta yilla jàmbaatin la moo waral moo dem gaale moo sellal Tuuba ko jafal ba muy leen seen geneel ba muy nii seen sawru faal sëñ Tuuba ko jafal ba muy leen man sawru faal sëñ Tuuba ko jafal ba muy leen man sawru faal sëñ Tuuba ko jafal ba muy leen man sawru faal sëñ Tuuba ko jafal ba muy leen ku jaabal ba muy dee. maam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba ku jaabal ba muy dee. maam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba ku jaabal ba muy dee. maam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba ku jaabal ba muy dee. maam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba ku jaabal ba muy dee. maam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba ku jaabal ba muy dee. maam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba ku jaabal ba muy dee. maam Sawru Faal. Sëriñ Tuuba. ko jaafal ba muy leer. Bamba yéene moo ëpp pay jëf moo waral moo am Bamba ab la jëye may na am moo jaara yéene jaara Bamba yéene moo ëpp pay jëf moo waral moo am Bamba ab la nit la muy jëf yéene waral kërug buuram yëfarit la muy jëf yéene waral kërug dooram ab jullit la muy jëf yéene waral kërug buuram yëfarit la muy jëf yéene jëf te boole koog looloo mooy ngir ma dee leen boole koog yéene moo tax jullit war nga jëf te mooy ngir ma dee jëf boole koog yéene damay doora jóg anaa ñu solal taxoon mosul ween ku gudde mu dem di waxtaan di waxtaan te taw dara ak leeral taxoon mosul ween ku gudde xelam di waxtaan di waxtaan naan te taw dara ak leeral taxoon mosul ween ku gudde mu dem di waxtaan di waxtaan naan te taw dara ak leeral taxoon mosul ween moo koy ngëneel ndaw ngoolal mu teel a sama Kéemaan fuuran mu koy ngëneel ndaw ngoolal mu teel a sama di kemaan mu rangu koy ngëneel ndaw ngóolol mu teel a sàmbaroon leneen doole laaj mu mel ni kemaan mu rangu koy ngëneel ndaw ngóolol mu teel a sàmbaroon lu baax lu baax di fanaane xar baax boo doon keneen di wax ba mu dem dal di wàññi sa la feeñul jafe nga ci jaar خاتم mbolaan mu naan wal wal déggate fi kenn kumar mbaa ko gantu tey bañ a wal soxna jaara boo ko liggéey mbolaan mu naan wal wal déggate fi kenn kumar mbaa ko gantu jéeg mambolaan mu naan walwal dégg kee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. moo ko liggéey mambolaan mu naan walwal dégg kee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. dégg kee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. dégg kee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. dégg kee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. dégg kee fi kenn kumar maa ko gantu tey bañ a wal. déggate fi kenn ku mar mbaa ko gantu day bañawal déggate kenn ku mar mbaa ko gantu day bañawal waay war mi dem na a ne ngeen ji jéema day gandile ñi nangoo ni gantu du tee bamba fépp lay darale waay war na ku ñi nangoo ni bamba fépp ne ngeen ji ceebo day gandile ñi nangoom ñi gantu du tee bamba fépp lay darale waaye war ñi gan na fu ne ngeen ji ceebo day gandile ñi nangoom ñi gantu du tee bamba fépp lay darale waaw war mi gan na fu ne ngeen ji ceebo day gandile ñi nangoom ñi gantu du tee bamba ñëpp lay dimbali waaye war mi gan na fu ne ngeen ji ceebo day gandile ñi nangoom ñi gantu du tee bamba ñëpp lay dimbali ku ne gan gi jaaba day jëndale ñu nangoo ñe gan gi bise bamba ñëpp lay bañ bakk baa ngi kenn terewul ñun ñu gëm dañuy ngi ngan gi jaaba faw mu wal ku yabu daaw ku yabu bañ bakk baa ngi kenn terewul ñun ñu gëm dañuy texe ngi ngan gi jaaba ni tel terewul nun ñu gëm dañuy texe ngir ngeen ji ceeba faw mu wal ku yebu ceeb ku yebu wal ndax damaa ni tel terewul nun ñu gëm dañuy texe ngeen ji ceeba faw ñu ko gëm dañuy jafe ngir ngeen di ceeba faw mu war. ñu ko gëm dañuy jafe ngeen di ceeba faw mu war. ñu ko gëm dañuy jafe ngir ngeen di ceeba faw mu war. ñu ko gëm dañuy jafe ngeen di ceeba faw mu war. ñu ko gëm dañuy jafe ngir ngeen di ceeba faw mu war. ñu ko gëm dañuy jafe ngeen di ceeba faw mu war. ñu ko gëm dañuy jafe ngir ngeen di ceeba. ko gëm dañuy tere ngeen di tee ba faw mool. ñi ko gëm dañuy tere ngeen di tee ba faw mool. ñi ko gëm dañuy tere ngeen di tee ba faw mool. ñi ko gëm dañuy tere ngeen di tee ba faw mool. ñi ko gëm dañuy tere ngeen di tee ba faw mool. ñi ko gëm dañuy tere ngeen di tee ba faw mool. ñi ko gëm dañuy tere ngeen di tee ba faw mool. di takk ba tey ci ki la wax dal na yaram déglu leen te suufi ngi tey ku yëngu takk ku yëngu